Assalamualaikum Gambia, Assalamualaikum Aduna, Eid Mubarak from Gambian Talents TV. Kon nun ko de faral di defee rek génn indil leen li nga xam ne moo nekk di xew si dëkk bi right now ñu ngi ni fii si Abuko boori Abusi uh, Johnson uh, tey nag uh, mooy Eid mooy Korité Day Ah, gis ngeen jumaa bi fii jumaa la at the same time mu am school place bi yaatu lool nag ah, before julli su jotaan ah, abuko ñu bari fii leen di dajee julli celebrate seen Eid bi waaye at bi is the opposite gis ngeen place bi nu mu wéetee ay benn benn ñit nga di gis soo gisee kenn di nga taxaw another two to three minutes balaa ngay gisaat keneen te ko gis doo dee fil ne lay tey am na lu xew o bés bu mel ni Eid la lii nag mu daw yaram torop bu nga xamee suñ boppa ba tey mosuñoo expérience lu mel nii euh, ba na ñu ngi ñaan yàlla euh, mu teegi ñu feebar bi nga xam ne mooy covid 19 ñu gën koo xamee si coronavirus ba li nga xam ne moo liid lu mel nii euh, ñuy ñaan yàlla yan nañ ko fekkee ay at yu bëree bëri mu jégal ñu suñ baakaar si yëpp Uh, once again, Eid Mubarak from Gambian Talents TV. Stay home, stay safe. We love you.